bu laajee eh, amul ku mu laaj ku dul amadu Ba day wane ne moom xam na ne kan lay waxal amadu Ba ancien premier ministre yore na fi économie yore na finance yore na affaires étrangères yàgg na ci nguur Amadou Ba am na sax ñi nga xam ne dañuy xalaat ne tey ji bokk na ci ñi nga xam ne ñu ëpp alal Sénégal ah loolu nit ñi defar nañ ko seen bopp donc Bassirou su waxee loolu te mu wax ak loolu eh, ba Ba am na li muy xaar parce que ñëpp ñu ngi coow loolu parce que ki muy waxal bon quand même ku am expérience la ku ñu ku ñu ràññee ci administration bon léegi nag moom euh, nee na dina def déclaration loolu pour mu nekk en tout cas débat moom débat lay xaar que dina def déclaration pour wane Sénégalais yi que man lii mooy sama alal su ngeen ma fale euh, bés bi may jóge ci nguur gi dinaa déclarer aussi li ma am donc loolu bonne gouvernance la defe naa euh, moom li muy seet mooy wax ak Amadou Ba loolu aussi ci campagne la nekk mais li mu gën a seet defe naa mooy que candidat yi mën a coow affaire euh, des des biens